jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare lamb nuyooti nañ leen am kontante ak mbégte comme ni leen koy defalee saa ne mbokk yi ñu ngi fii ci Médina rue 5 angle 6 kii fi def open press di bébé Diène mi nga xamante ne moo war a bëreel fourrière bu Grand Yoff mbooloo la le mars le 14 mars la fëra ci arène nationale Fallou jaay moom Assane Ndiaye moo ko dëgg jiital Baol production kaay ñu xool open press nan la bébé Diène dugg see kaay sëñ Bas Bébé Diène a ngi noonu eh, waa Medina génn nañ bébé xool ko ma ngay noonu ci loo sant lu dëkk sant yàlla yaa maa ngi waaj waaw tey mu ñëw fekk la ci open presse bébé jéen seen diggante lan la non bébé jéen sunu booy la rek waaw sunu kanam la yaroo quoi ñu bokk Medina bi dañuy ñëw soutenir ko rek ñaanal ko ndam quoi yàlla may ko muy bëre Fourrière xam nga Fourrière. Fourrière waaw xam naa ko nii rek maa ngi ko doon seetaan muy bëre ndaanaan la quoi mais sa waay ndaanaan la ñaari ndaanaan lañ. Bébé Diène fi ñu toll boo koy conseillé ci làmb ji nan la ko war a mën a bëree ci diggante ak Fourrière. ah mais mu jox waa lim moom rek jël lim moom quoi làmb moom boo bëree bëreewaat kenn du la wax li ngay bëree war ngaa mën a xam li ngay yóbbu bu suur ba quoi jëm bëree. mais fan yii ku leen xam xam ne yéen waa Medina neexle goo leen ci compétition yi de. a ñun moom xam nañ sarax bi yaa a gën a xam tiituñu dara. kon a xam ngeen saraxam. non xam nañ saraxam. Fourrière démb dama koo seeti mu ne ndiis bi ndiisam la te da koy jël ta ñaari ndiis yëpp moom mooy borom. waxu mbër la rek mbër moom yaa ma gën am xam lu la neex man ngaa wax mais bu jour baa yaa a gën a xam du def dara sa waay xale la te daa ne ci yoon quoi. bal Balla am na problème de. état bi ma. maam ma dencal ko rek. ba pare. fi mu ne nii yaa ma gën kulus rag muy gaaw rag muy gaaw <laughs> rek nga loo koy wax rak la sama rak la dama koy koose comme li may koose sama di ko ñaanal Mouhamad Komba yàlla may ko ndam borom baax la quoi suñu rak la rak ju baax la ci defet di conseillé ki ne ci defet loolu mën naa li may koose sama bopp laa koy koose loolu laa wa wax liggéeyaat xam ne maanaam kuy bëre yaay daanu da ngay liggéeyaat gëm sa bopp xam ne xale bu ndaw la man mi xale la mais man maa ko mag looloo tax ma koy wax ne ko liggéeyaat fos jom xam ne maanaam bu yoon jeexul waa si suuf loolu kese la. naa siyaar naa. dëgg am ci defet neex na. waaye sant yàlla rek waaye dañuy sant yàlla bu baax xam nga ñun maa ngi suñ bopp quoi xam nga mooy maye. waaw li ci war yëpp def nañ ko ànd ak suñu mbokk ànd ak jàppale xam nga waa Colobane waa Bawol yëpp ànd ñoo xam waa Medina Fass ñëpp ànd nañu ñoom xam nga ñëw yàlla te li lañ yàlla seede quoi dañuy bu wér ay xale lañ tolawuñ fu ñu am booy yi ndaw lañu kooku suñ gànnaa la xëy tey boo xoo suñuy gànnaa la war a bëreel mais tey dañoo a dajeeg moom pour bëreeg moom mais dañuy sànni yàlla bu wér rek. mais ñu bëri nee nañ ci combat bi excès de confiance moo la ñàkkloo combat bi. ñun moom ñun depuis ba ñu bëree mbapat ba tey ñun même mbapat sax su ñëwee day jàpp ñun dañ koy jël parce que ñun ci tur ñun boo xoolee suñ tur tey amateur yi daa ñu bëgg ñu dañu bëri mbapat adressé ngoor Iba Mar fépp barka alxuraan ci la ñu ràññee nag ba ñu commencé dugg ci arène bi nag di wane xale ñun chaque combat ñun combat bu mënoo doon ci àddina dañuy am confiance teewul bu ñu duggee bi dañuy bëre teg ko ci yoon mais xëy na suur boobu di woon sama bés dama koy ñaanal rek yàlla ko ndam di man ndam li sama kanam xam nga yàlla defet bi yem foofu quoi di woo sama gars yi dina waa ñu ngi may waat combat baa nga ne a jabaat ñu waajaat a baax a baax xam nga ay xale lañ ko waa xale nag bu ñàkkee xam nga day dem mu nekkaat ci leneen. mën nañoo séntu saison bi balaa moo tëj nga bëriwaat. bëgg naa bëriwaat ñaari combat incha allahu rabbi parce que ñu ngi may wax mais xam nga damay bàyyi nag bu après góor gi wax ma bëri parce que sama combat yi dafa teglantoo bilaahi. jaajëf Bas. lay ziar. waaw ñu ngi lay delloo ziar di la bëggee lu bari. lu dëkk bi wax. waaw dëkk mu ngi nii rek ah dal jàmm. waaw waajal seen doomu nday mu nekk ci combat bu moog Fourrière. nan ngeen ko waajalee. waa ni ñu doon waajee combat yëpp nañ seeg moom. wàllu entraînement lépp lu mu laaj daal xam nga instant yi daal jour ba la ñuy xaar yàlla mooy ñu mais lépp lu ñu waroon def nañ ko ci combat bi. xam nga ki muy bëree Fourrière. xam naa ko xam naa ko bu baax Fourrière. la Fourrière gën a mëne. waaw loolu loolu ay secret la ñuy waxtaanee après maak moom xam naa ko champion la waaw mais tamit ñun combat bi am na lum ñu jaral daal te incha allah dina leer bu soobee yàlla. Fourrière damaa dem seeti ko mu ne ma ndiis bi sama ndiis la daf ma koy jox ci nii wala ci nee nee na ñaari ndiis yëpp ndiisam la lan nga koy wax ci lool waa loolu am na droit wax ko quoi moom la concerné mais Bébé Diène ragalul lool de ay ndiis yooyu yàlla xam na ko ragalul lool de moom li ko ñor mooy biir làmb arbitre sifflé mais ay ndiis yooyu yëpp mooy loolu affaire mbër la rek mais booy moom ñun ci bëre lañ ko préparé ak ci xeex incha allah mu ñëw wane boppam dem bëreeg ñu mu war a bëreel. avantage Bébé Diène ci combat bi lan la xeex wala bëre. waaw ñaar yëpp. ñaar yëpp moom moom bu amee lu muy moytu si xeex wala bëre sax xale la ñu wax ak moom amu lenn lu muy moytu day ñëw wone boppam jox ko respect rek lañ lay wax jox ko respect jox ko cër parce que mbër la comme yow mais bëre xeex yëpp ragaluñ ko. wolof daf ne oto lu mu fees fees nuyul ma sama yaay xaj na ci. li may gis muy riir. dégguma ko waaye daa mel ne année blanche la ci yow. ah waa loolu moom euh, loolu moom si yàlla la dépendre rek. xale xale liy riir rek liy direeku yëpp. xam nga si yàlla la dépendre rek parce que ñun bu ñu sañoon bëre bu doon man rek chaque chaque weekend ma bëre mais xam nga làmb samay fukki morom ñi ngi fi bëre wuñu duñ ma gën a gore dañuy entraîné rek xaar lu bu ñëwee baax na bu ñëwul tamit mooy loolu. sa naataangoo ci làmb bu mu toll nii actuellement nga yaakaar ñan la. waaw man moom gars yi dama leen bàyyee tudd parce que koo ci tudd mu ne booy bi xam nga bëggul bëreeg man wala wala mooy loolu koo ci tudd daal làmb jafe lay yàqoo xam nga moo tax bàyyi naa tudd bàyyi ma entraîné rek nekk si li ma war a nekk grand contre petit nga bëgg wala say morom da ngaa bëgg a bëre ak ñoom non grand contre man samay morom ñi ma si war a daan ñëpp ñi ma bëre ndool yëpp même ñoo ma mag mais ñi doon wax samay morom dama leen daan essence yi si kaw laa war a dem te loolu laay liggéey daal di xaar comme ñaan waaw ñëpp ñëpp man dootuma tudd tur bàyyi naa tudd tur yàlla xam na ko bàyyi naa tudd waaw xaadim yow yow combat mën naa ne yow yow yow yaa ci nekk waaw mais gis nga ne sa waay bëggul sa xaalis bu bëri lay laaj non mënoo ko fay de moom li muy laaj roi des arènes sax laajul loolu moom lu muy laaj moo daan nee na si bëreeg man waaw. gannaaw na naxaar. mais pare nga pour jël moo daan ta waaw man fi mu toll nii sama mooy sama adversaire si làmb mais boo ko toppee bu yàggee sax day jaay neex. neex na de te man la waaye. man kees gi na xeex mën na. man la laay doyeelu xale bu ndaw su ma bëggee lu yomb dañ ma war a rey man lu weex rek laay wër si làmb billaahi te balaa mu ko doon xam jël avance bi. champion bi Ada Fass siyaar naa la. jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf Cheikh Amadou Bamba Xaadimu Rasuul jawla al misbah karafal maa lay ziar la fay. tey ma fekk la ci open euh, open presse ki nga xamante ni mooy Bébé Diène ngeen bokk dëkk Medina seen diggante lan la. waaw Bébé nekk suñu doom nday nekk Baye Fall nekk borom baax lu ñu xewale mu teew kon bokk amul lu dul bisam ñu teewal ko di ko ñaanal yàlla yàlla ko may ndam si kaw Fourrière. nga Fourrière. xam nañ ko bu baax bëree jàpp daan ñibbi amul leneen. pour day yombee noonu ndax Fourrière gis naa ne Grand Yoff gépp dañ koo yaakaar te nee na am na lum ko jaral. waaye day yomb bay bëgg a dee bëree jàpp daan ñibbi la amul leneen waaw. daanaka sa waay la xam nañ ko bu baax a baax a baax. sa diggante wax parcelle dara. du génn parcelle duggaat parcelle. lii moo fi indi ba mu pares. dugg ci bi génn nga ci bébé bis bi duggaat ci Tapha Mbeur lan la. non ama pares ma fi indi. beneen yoon am na. incha beneen yoon am na si kàttan incha allah ñëpp di ziar ñëpp ni ngeen ko gisee ñu ngi fii nga xamante ni moo di Médina li ñu fi dajale nag moo di open presse bu Bébé na guddi waaye davant dara dañ nuyu bàyyi ko mu nuyu ñu koy seetaan à travers le monde mbër ziar nañ ko ginnaaw ma sant yàlla julli sonente bi sama ñaari waajur damaana la ñaanal sama papa yàlla suñu tëb yàlla ko yàlla yërëm xaree ko àjjana sama sëriñ sëñ Abdou Karim nga jug bés. maa ngi nuyu sama papa sama papa maa koy nuyu. depuis combat bi taxaw. loolu Serigne Touba chaque jour kër Ndiaye lay jóge joxuma ko dara. mooy ñëw entraînement. teg ma si yoon maa koy ñaanal yàlla lépp lu muy bëgg si xolam yàlla defal la ko baax si waaw nga jub bés war a bëre Fourrière bu Grand Yoff nga waajalee bés bi waaw sant yàlla rek di nuyu waa Medina yëpp waaw ndax ñoom ñoo tax ma tay may dem di bëre maa leen di nuyu bu baax a baax ku si mel ni Pape Bamba Fall jàpp na si bu baax ni Messi waaw ku si mel ni Seydou Gueye Sidou Samba comprendre nga waaye nga ñëw ci gërëm bi mais dañ lay wax ni nga waajalee bés bi parce que samedi ngay bëre maa waaj ànd ak samay mbokk ànd ak samay papa yi mooy ñu ma war waaw ku si mel ni sama papa Kayre ku ni sama papa Abdou Salam ñoom mu naar comprendre nga su ma numéro ma yónni. pour yow parce que am nañu a ne maanaam da nga wàññi poids pour yow lan la combat bi la laaj bëri bi. non lépp ak sama papa kay rek rek lépp lu ma tegoo rek loolu laay tegoo xam na ni moom xam na xam na lamb. wàññi poids xaw ma si dara échange xaw ma wàññeeku naa wala wàññeeku bis ba incha bu ñu filmee ko xam ne damaa wàññi poids wala dama athlète wala dama. xam nga ki nga war a bëri. waaw xam naa ko. waaw di ko nuyu bu baax di ko ñaanal bu jour combat bi may ma ndam ci moom lan mooy fooram pour yow lan la gën a. non xaw ma luy fooram man sama foor laa xam yëpp nañ ma daal lépp lu lu fay xew man maa ko def. waaw bëri koo li li muy bëreel est-ce que loolu yàlla baax na. ay ay làmb. ñoo ñoo xamante ni làmb ñoo yar. waaw ba combat bi am na ñu jàpp ne a arrangé. waaw lu mu andi rek. waaw lu ma andi man daal damay ñaan yàlla yàlla ma yàlla may ndam bu sedd guy ci barki sëñ Fallou di nuyu sama ñoom papa Samba Ndour ku si ni sama papa Diaw Ba xam nga ku si mel ni père Giraan père Bour Niang. may la mu doon sama position waaw jërëjëf bébé Diène ñu ngi lay nuyu démb dañoo dem Grand Yoff hmm. démb dañu dem Grand Yoff seeti fa Fourrière mu ne moom nangul na la sax champion mais chaque jour yow foo toll joxoo ko cër li mu moom wala li mu mane nanguloo ko ko mais bu jour ba dina xam ne champion day nangul moroomu champion champion. waaw jox naa ko cër nag. jox naa ko cër ba jouru làmb je ma joxaat ko cër yàlla mooy ma ndam. yaa loolu laa lu may wax. nee na moom mobilisation. gis nga lu mu fi fekk. lépp rek maay sant yàlla bu baax. waaw di nuyu yaay bu baax. di nuyu ñu may àndal ñoom ñëpp su mel ni ñoom laay booy dañuy sonn si man ku si mel ni ñoom Koutia ñoom Youssou ah. ñoom Lamine moom ñoom moom ma naar Bébé Diène maa ngi lay ziar ngay daje xale bu ës comme li ma la waxoon loolu laa lay waxaat nee na nga soo ko mayee sa temps rek nga taxa mu géem na si ay minutes lan ngay wax si loolu Fourrière nee na boo ko mayee une minute mu géem la ci ay minutes lan nga xam na nee na ndiis bi nii sa loxo boo ci tegee jaasi dal sa loxo waaw man moom nee na ma ko su ma ko taxawee xaw ma la lu ma wax ndisam la man dama koy coppati rek andi ko waa maintenant yox la jëli ko def sa poos waaw rang muy gaaw rek yàgg ko nuyu naa comprendre nuyu di nuyu sama mbokk pël Fuuta ndax man pël Fuuta laa yaa ngi wuraade kala ko pël Fuuta woon yor wàllu to la donc ɗo anndi ko ɓiɗɗo mo woni jippiɗo ɗo koto ɗon sambo mayr fat bi am na goɗɗo feere palay bi am na lu xewoon fene taara def lan récemment est ce que yéen yéen a ngi ciy bàyyi xel waaw maintenant duñu yàq lamb musuñu yàq lamb waaw ku mel ni xam nga sa papa kay rek ak bu ñu leen gisee rek booy am yar man ay booy am yar laa jour lamb ji dinañ ko xam soxlaw ma ko sotti dara du ma ko sotti dara jour lamb ji daa xamala laam na ñëw taxaw rek at bu suuf la mu def statut bi fii ko ma wooteel waaw maa ngi nuyu nag sama mbokk mbër yi teew fii yëpp waaw ku si mel ne sama turandoo jën tey la maa koy nuyu baax jàpp na si ko mbay guy gi xam nga ñoom mu liggéey ñoom dugg sama bas nag xam maa koy sant Bébé Diène combat bi ci xeex lay jeexee wala ci bëre ndax gis nañ sa adversaire ñu bari dañ ne pourquoi Fourrière looy tontu ci bi ci xeex lay lu mu laaj rek man lu ma laaj rek man sam papa Kaye rek dox na ma lépp waaw lu mu laaj rek naa ko si fekk si. waaw nee na xeex waaw sëñ Fallou rek yàlla baax na. waaw sëñ Fallou rek maa ngi nuyu waa Tivaouane Peulh bu baax di nuyu sama nijaay di nuyu sama maam di ko ñaanal yàlla gudd fan. waaw di nuyu ñi may àndal ñëpp waa Medina ñoom ñëpp maa lay nuyu ñu Rebeuss Gueule Tapée Fann Grand Dakar Fass nuyu ñëpp waaw di nuyu ñoom Mame Modou Mamour waaw kooku moom sama papa la waaw kooku daf ma jàppale bu may nekk xale ba xam ne lépp waaw di nuyu ñoom Boy Refane Boy Boy Refane day taal otoom comprendre nga di ma yóbbu dinañ ñoom Bour Sine waaw maa leen di nuyu maa ekkati si mbuj ñoom Forza surtout maa waaw maa leen di nuyu Moussa Faye Vince comprendre nga fer kase nag docteur Kassé bu Serigne Saliou maa koy sant yàlla bu baax waaw Modou Baye Fall maa koy sant yàlla bu baax Bas Saliou Soudeur waaw Baba Diaw maa koy sant yàlla bu baax Lamine Kassé moom ak waa équipe Soumbédioune ñoom ku si mel ni sama papa Gora Ndoye maa koy nuyu bu baax waa Espagne ñoom buuna maa leen nuyu bu baax waaw frère lu ma koy wax amul lu dul na ñëw teg ndiis bi rek ma coppati ko yóbbu ko waaw di nuyu waa kër Oumar Anne bu baax sama papa Oumar Anne waaw ndax seen gaal laay nekk ci kaw ñoom wali aan ñoom ñëpp maa leen di nuyu. nee a ah? jaale nag. waa kër Bilal Fall man fa laa juddoo yaroo waaw Abdourahmane Fall benn turandoom saa sama amee daan Fall maa koy ñaanal yàlla yàlla na ci laala Fall yàlla ko yàlla yërëm xare ajal dem di nuyu waa Mbote di waa Mbote bu baax maa mbay kilim maa koy nuyu bu baax di woo laay Seex Baaba xam nga ñoom Pape Gueye jërë seetaan wasaare lamb open press ba jeex na diggante bébé Diène ak Fourier le 14 incha allah koo xamante ni promoteur bu mag la ci làmb muy Assane Ndiaye njiital Bawol production mbokk yi loolu lañ leen doon dégtal ak wasaare làmb dina neex dina yëngu jaa ngeen jëf.